fan nga fi ma jëm sa yoon nekku si te bul wax laa ngi teel. Sow yaa ngi bëgg a naqare deret de. eh sama naqare bëgg may ma jàll. bàjjen vraiment baal ma mais mënumaa toog bu ndaw il faut mu ñëw wax lan moo tax may fenal naan dama koo saaga. kër gi yëpp xam nañ ni yow doo saaga ndey kenn. kon bu ndaw moom moo ko wax. kon na koo yëg. yëg naa ko anam. jaago de su fekkee loolu moo ko metti nar naa sonn te li yomb na Ba na dem def ni man mom day sey du jek la te bàjjan nit buy nak da ngay joni touti am say fem yu ndaw bàjjan tamit ooy la maan fi la lay xaar nga ñëw fi la ki dina xam ko la ko nay sa fi la ko xaar bu ñewé tay lepp dina leer ba ha ah? yo bo nekké jigen te amo amoo ay feem safoo jigéen man lan laa ci man lan moo ci sama yoon man waaye baax fii laa naan déjju toog bu duggee jàkkaarloog man. bu bis ni ki tey may naa la sa baat.